man maa la mën boobu dafa feeñ ci face à face bi dañ defoon ne sax c'était pour vendre le combat mais ni mu waxee noonu la bëree loolu des fois day fatal ci ginaar sax boo ko moomee. nga bëgg daqante moom ci biir benn périmètre. pour jàpp ko tu vas souffrir seetlu ko. benn deuxièmement sport de combat wala équipe de football wala waree fa woon sport bu mu mënti nekk. Mhm. adversaire da nga koy jox le respect bul indi humiliation d'abord. Mhm. quand tu veux humilier une personne. si sa fort boobu. day mujj nekk faiblesse yow parce que da koy utiliser yow yaa ngi bëri xale boo xam ne xale la. Mhm. amul fougue de jeunesse force de jeunesse te indi. Mhm. parce que il a été lucide franc mu dàq ko dawul déplacement latéral la doon def moom poids bi mu am booy bi xam na ni su ko basculé woo latéralement day am déséquilibre loolu kese la. te Franc à la trempe de Bombardier de Franc de Serigne Ndiaye et de consort dañ nekk mbër yoo xam ne dañ doon commencé yow xam nga ci dara yaa ma gën a bëgg mbapat yow ak yow ak yow ak baabu quatre heures du matin euh, seize heures ba quatre heures du matin nit ku koy bëri c'est énorme mhm. te booy dañu tàmm loolu dañuy nekk trois cent moom sous le sous le contrôle mhm. du vice président mhm. mbapat bu ñuy inscrit dañuy dem ba ay trois cent lutteurs ba deux cent maintenant c'est réglementé. c'est réglementé. par par catégorie et par nombre. parce que dañ doon doom parce que da doon indi ay. Euh, fatigue da doon indi ay blessures. Mhm. un être humain peut pas continuer à faire du sport pendant douze heures de temps. Mhm. loolu dañ ko war a régulariser xoolaat ko. Mhm. heureusement wala moom ni mu ko waxee. te dugg nañ ci làmb sax ñuy ñaanal suñu papa Gaston. benn mag daf ma ko doon wax. Ah mu ne ma boo nekkee xale di def dara fexeel bu booy xool si kanam mag nekk ci waaye bés boo demee ba nekk mag. di def dara fexeel ba boo xoolee sa ginnaaw xale nekk ci il si bien dit père Alioune Sarr bi muy dem. jaaxle woon nañ. mais fekk na boobu ñoom ak ñoom président. Bira nekkoon peut-être xale si wala nekk seen ginnaaw mën a continuer. loolu la expérience di jariñ donc booy bëre nit joxal nit ci respect bul indi humiliation ak correction mbër yi ko fi mës def yëpp dañ am defet mhm. tey mën nañ jël exemple Sa bi muy bëreeg Malick Niang mhm. daf ko dal bi muy bëreeg booy Niang mhm. pour humilier ko daf ko dal mhm. ak yeneen mbër ak yeneen mbër mbër booy bëreek sa moroom adversaire da nga koy cadrer jox ko respect am round d'observation mais arbitre du ne prip ma dox sa kaw yor benn masse boo xam ne centre de gravité bi tout le monde sait que le haut du corps mmh. du bombardier est supérieur à, à ses membres mhm. booy bu nekk mbër am technicien nekk tacticien boo ko déplacé woo latéralement un deux mu xaw a gilibaane bu duggee ci garde bi xeexaw moom rëw cent quarante kilo mu mën ko sañaxal sànni ko mu dem. te xeex bi jugul parce que crochet bi marteau la. au lieu la ak benn laaw. Mhm. te bi mu dóoree laaw bi booy bi jël na ko. gaa mais dafa lucide demul direct parce que bu fekkoon dafa nekk ci axe symétrique bu bombardier. Mhm. bi ko coup bi dalee day wàcc. Mhm. loolu moo ko may chance dafa dagg bombardier en deux déséquilibré désaxé ko moo tax bi mu ko duree coup coup bi du am doole bi mu war a am. da koy amondir ba pare moom mu déplacé wu utiliser poids mën na bëre. mais poids Bombardier la utiliser pour daan ko. li ñuy ñu dul gis bi congo amee. Mhm. xëy na jàpp nañ ne Bombardier euh, poids am dafa ñëw. Mhm. mais booy xoolee moom moo def action faxat mais booy def ko weñ. waaw. ba doon ñëwaat tey ci bërëb bi sew boobu nga xam ne tey Franc def na ko entre temps pour utiliser tey cette masse musculaire de Bombardier là. Mhm. pour yow qu'est-ce a fait la différence en temps. a fait la différence la. dina mën a am calcul wala téy boobu